maaleykum maa ngi tudd Moustapha Dieng di président wu Maawu Rahmati Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides yàlla na yokk yàlla yokk fanam ak kàttanam ak wér moo ma woo ci 18 juillet 2018 wax ma ne ma daf ma bëgg a dénk liggéey bi nga xam ne moom lañ def ci Maawu Rahmati ma am ca mbégte lool bu rëy rëy ndaxte dafa ma bett maa jàppoon ne loolu sax méritewuma ko waaye mu woo ma ne ma ñëwal ñu ànd liggéeyal seen Touba. man maa ngi tudd Mor Anta Lo je suis comptable là maa ngi liggéey fii ci maw Rahmati depuis 12 ans nag maa ngi fi biñ ko sosee ba léegi kon mën naa ne déroulement bi yëpp dara du ci maa problème depuis bi ñu namee président bu bees ndax président bu bees bi lim njëkk a indee problème mooy dafa am manque de communication ci diggante moom ak ñun. ma dem ca siège Maawu Rahmati fekk fa administrateur ba nuyoo moom saafonteeg moom ne ko kat man sëñ bi dénk na ma liggéey bi waaye comme ñëw naa.

maa ngi ko doon xool di ko noté ci sama niveau moo tax bi ñu ci yeggee it ma jàpp ne fii du duma ne li fi nekkoon baaxut wax di sëñ Cheikh Mbacke Aliou ma fa nekkoon liggéey na fa liggéey bu rëy rëy ñëpp gis ko waaye liggéey boo gis moom it am na mees na ko jéem a seet noo xam ne pour améliorer ko gën koo gën koo gën koo baaxal. ne day day fa indi division pour mieux régner loolu nag moom lañ dul nangu. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moom li mën a nekk mooy ñi fi nekk mu bàyyi leen fi ñëpp kenn ku nekk la nga yoroon mu delloo la ko ñun ñëpp ñu ànd liggéey comme nañ ko doon liggéeyee ci diiru fukki at ak ñaar. ànd ko waa Kër Sëñ Tuubaa gépp ma bëggoon leeral tuuti rek. xam nga fan yi am na ay coow yu ngeen dégg ca Maaw Rahmati am na ñu ci génn nag wax ne man maa arrêté liggéey bañ doon def ca biir. ba wax nit ñi nañ dem dellu seen kër loolu laa bëggoon a xam ne rek amewul noonu luy aju ci foofee ñoo liggéey ci ndox mu neex mi ña fa nekkoon ñoo dem keroo samdi jékki-jékki arrêté ko dem toog seen kër waaye man arrêté wu ma ko ma yokk ciit it dàquma kenn beddiwuma kenn te li fi nekk dossiers yi ñu liggéey yëpp moom mi moo ko fi créé bi yàlla dogalee ba ñu ñëw nag si lañ ci jàpp ci liggéey bi di créé yeneen dossier ba tey dossier comptable yéeg yëpp mu am donc mën nañ ne moom bu ñëwee en 4 mois li mu woon def moom xamagul liggéey bi dafa waroon collaborer mu ne ay ati at ba liggéey bi taxaw bu ko neexee nag mu doog seppi nit ñi doog ko sànni. loolu nag bu ko amee daanaka postu administrateur koo xam day nekk sama diggante ak responsable yi pour man jëru ko jëru ko léegi man bu ma soxlaa ka yor. finance mën naa ko woo na ko defal lii ma soxlaa ko yor affaire plomberie mën naa ko woo na ko yore lii ma soxlaa ko yor affaire réseau mën naa ko woo na ko defal lii ña yor branchement yi boobu man forme d'organisation moom gën a convenir Thank you. bisimilahi rahmaani rahim ñi ngi jiital sunu nuyoo di nuyu kilifa yi nga xam noo fi nekk kilifa gu tedd gi di sëñ si di sëñ Muntaxa di ko ñaan mu yàgg fi lool ba yàlla mottali yéeneem ba liggéey bi nga xamoon la bëgg si Touba incha allah mu eggale si jàmm ak salaam ñun nag comme ni ko xamee ñun dañ fi teew man maa ngi tudd Ousmane Diallo nekk maaw raxmati yor li nga xam ne mooy mbirum comptabilité bi di say lépp xaay buy dugg ak buy génn ñu délégué ñu fii nag pour ñu xaw leen leeral tuuti li nga xam ni moom la ñuy liggéey foofu foofu ma def benn parenthèse tuuti rek di xam ni soo gisee li waral lii lenn rek moo ko waral mooy dañoo xam ni fa ñu jóge fa ñu jëm waaw fa jóge moo gën fa ñu jëm constat boobu def nag moo dem ba mbooloo bi ñu daje xam ni comme lii si fayit la jëm ñu ànd doon benn say ne lii duñu taxaw seetaan mu jëm kanam si foofu ki nga xam ne moom fi yàlla bàyyi woon muy Serigne Cheikh yu Bakk mu am liggéey bu rëy bu mu defoon ba bàyyi si compte yi solde bu nga xam ni tolloon na si 45 millions 23 mille 353 si biir loolu amoon na xaalis bi nga xam ne dañu ko war a jox benn société bi nga xam ne mooy bënn forage daaru mannaan bi mu mu tolloon si li nga xam ne mooy li nga xam mu tolloon si muy million cinq 500 mille francs donc loolu su génnoon. L'idée de ce compte est 20 523 353. Nous avons dit que actuellement, le solde est 9 14 687. Ce que vous savez, c'est que nous avons fait. nous avons assurance auto, nous 613 500 francs. Le carburant que nous avons fait, c'est que 1 850 000 mobilier matériel bi nga xamni moy nouveau bureau yi nga xamni mom la ki nga xamni ne Moustapha Dieng muy daf ñu daf ñu créer ben charge bi nga xamni charge bobu mu créer amul retour li nga xamni mën na complet charge bobu mu jël niveau bureau bi nga xamni daf koy fay chaque mois 145000 francs la koy fay Taxi, mobilier matériel bi luñ bi ñu bureau bi mi ngi toll ci 1 million 122 mille matériel électronique bi ma fa duggal mi ngi toll ci 643 mille loolu soo ko jëlee nga xayma ko mi ngi toll si deux millions deux cent mille bi nga xam mooy charge bi mu créé si bureau bi mu bureau bees bi bi mu jël nga jëm Senelec ñu ngi ko yore bor bi nga xam ne mu ngi toll si six millions cinq cent cinquante neuf mille quatre cent quinze soo xaymaa lii si charge muy bor mu toll si dix millions sept cent quatre vingt cinq mille neuf soo ko dindee si neuf millions quatorze mille six cent quatre vingt déficitaire doo dese kon soog fin bi di ñëw doo mën sa personnel bi loolu weesoo avant forage bu paaroon bi nga xam ni mooy forage forage bi nga xam ni mooy route de Bagdad bi bi yàlla dogalee mu paan moom si boppam rek dafa ne bi mu ñëwee def na 4 mois muy saytu di xool nit ñu liggéey ñu xam ni moom déjà bi mu commencé rek mën nañ ne moom moom yàq gi rek si moom la commencé. jël na ndox fi nga xam daaw ñu fa yóbbu mu yóbbu fa ndox Keleel Diop yóbbu Keleel Dieng yóbbu Nayde nga xayma ko si carburant mu toll si 871 685 francs

constat yi ñu def nag moo tax ñun ñu taxaw ne incha allah kii li mu bëgg ñun duñu si ànd tey li mu def mooy xam na ku am liggéey bi ku xam liggéey bi muy Malick Badiane administrateur bi te li fi nekk dossiers yi ñu liggéey yëpp moom mi moo ko fi créé bi yàlla dogalee ba ñu ñu ñëw nag si lañ si jàpp si liggéey bi di créé jeneen dossier ba tey dossier comptable yeeg yëpp mu am donc mën nañ ne moom bu ñëwee en quatre mois li mu woon def moom xamagul liggéey bi dafa waroon collaborer mu ne ay ati at ba liggéey bi taxaw bu ko neexee nag mu doog seppi nit ñi doog ko sànni mais en quatre mois mu ñëw bëgg def lii moom fi ñu toll mu ne mu ne ñu suñu xalaat bopp sax mu ne liggéey bi moom fa mu bëgg mooy yàq ko la bëgg yàq ko yàq ko moom moom moom mu fa fa taxaw te est-ce que sax taxawul fi yàlla yaa jege est-ce sax mu nga xam ne mooy état bi fexe ba li nga xam mooy maawu mu dem ba kenn dootu ko déggati loolu moom mun nañ ne est-ce si pexe yooyu xam nga donc mu ne ne moom fi bi mu ñu wooyee waxtaan dañ ko ne ñun maaw te chaque fois day def moom bi toogee ba léegi du benn yoon bu mu woowee personnel bi waxtaan ñoom bëri na ñu fi nekk xamuñu ki Moustapha Dieng loolu moom leer na moom tey koo dagal mbedd wala ki Moustapha Dieng xamul te maawu du du ñi fi liggéey rek ñëpp si bokk charretier yi si lañu bokk marchand ambulant yi si lañu bokk commerçant yi si lañu bokk soxna seeg kilifa yu baax yi nekk Touba yëpp fi lañu bokk donc li mu waroon def mooy woo woote def benn assemblée générale waxtaan même bu ko def mu personnel def def AG wala mu bind xayma ne lii laa bëgg ngeen ñu parce que nous ne ñu pas ak mais suñu administrateur ko xaymaal def li nga bind si ñun ñu ni nga bëgg mais ñu xool ni la muy les yëpp tey ñun ba ne eskay bu dugg def safaan bu def ba ñu que sëñ ba waxtaan ba pare dafa naka police ne ma ndax yow police woowu la ko lu may pour affaire këyit chèque yooyu yooyu man man man du ma man dañ may ne bindal chèque bii ne ma dépense bi dañu wax de bind ko ma bind ko man man chèque du ma ko gàdde loolu moom bu ko soxlaa da koy rek administrateur moom mu jox ko ko mais gis nañ ni moom taxawul pour collaborer administrateur li mu bëgg a def mooy jëlee ko fi te comme jëlee ko mu fi jëlee nag boobu benn commencement la su paree suñu ñëpp lay lay jëm parce que une fois taxaw na ne lii fi nekk si chauffeur loolu amu fi si oto. kon pare pour wàññi chauffeur si leneen li mu ni lii fi nekk si rampe de paysage di liggéey ñooñu bëri nañu lool. dem na ba waxaale un comptable nga xam pare noon na pour fay ko cent cinquante mille te ñun ñuy wax amul kenn ku fi am cent mille francs donc ñun liggéey Sëñ Tuubaa moo ñor te yàlla dogal na bi ñu fi ñëw léegi bi ñu bi ñu commencé en 2006 liggéey nañu 6 mois yi xam ne amuñu salaire loolu moom ñëpp di ko xam liggéey nañu 6 mois yi xam amuñu salaire donc muy ay lu nga xam ne lu tuuti la suñu doon wax ñuy gërëm ñëpp rek di sant ñëpp lii dafa lii dafa laajoon ñu leeral waa askan bi li nga xam moom la ñu jund parce que nit ñi bëri nañu wax te xamuñu donc c'était l'occasion ñu informer la population xam leen fi ñu toll ak li waral ak li waral suñu yëngut jërëjëf wa salaam